mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay 132 ci suuratul an'am wa li kullin darajatun mimma amilu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi santaar suñu boroom mi ñu dajale ci ab néegam ñu fas yéene jàng ab téeréem ci jamono joo xam ne mi ngi woo jullit ñi ko man ñuy dem daje ji ca njëlbeenu néeg bi yàlla jëkk a joxe ndigal ñu taxawal ko ci kaw suuf ca mooy fële ca makka lu bari ci julliti àdduna bi ñii yegg nañu fa ñii ñi ngi nekk ci wàccaay yal na yàlla yombalal leen ca nangul leen te mboole mi yoon yi ñu fa jëlee yàlla boole ko jullit ñépp kon incha allah tey mooy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru dul qaada daje waaw ci ñaar fukki fan ak juróom am na sax ñu ko def juróom benn ñaar fukki fan ak juróom ci dul qaada bi am di dëppoog 8 août 2018 bi incha allah ñu ngi war a dal kon niñ ko waxee ci téeméer ak fanweer ak ñaar wali kullin darajatin mimma amilu ñu bàyyi ak Cheikh Aline
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء أمما ويستخلف من بعدكم ما يشاء أمما أنشأكم kama
ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom mu ni wali kullin ñeel na képp ci ay jaamam darajaatum mimma amilu ay wàccuwaay ca lañ jëf muy daraja bu ñu méngool ca lañ jëf wama rabbuka bi gaafilin amma yaamaluun sa borom yàlla day nekk lu koy sàggane lañu nekkoon di ko jëf wa rabbuka alganiyu du rahma sa borom yàlla mooy ki woomle di borom yërmaande in yasha yuzhibukum su ko neexee day yóbbu leen wa yastaxlif min baadikum ma yasha daa di wuutal seen gannaaw lu ko neex kama anshaakum min zurriyati qawmin axarin comme nam leen sose ci njabootu xeet boo xam ne beneen lañu innama tuucaduuna la aat di ñu leen dig day luy ñëw la wa ma antum bi mucjizin te nekku leen day loo xam ne da ngeen da ngeen di mën a tës seen boroom qul yaa qawmi amalu ala makanatikum leen ay yéen saw xeet liggéey leen ci seen place yi inni aamil manit maa ngi liggéey fa sawfa taalamuuna man takunu lahu aqibatu daar xel sa ngeen a xam kan lay ñeel lii di mujj kër ga innahu la yuflixu zalimun li am day du texe mukk la nga xam ne mooy toñkat ya mi ngi noonu bokk julit suñu borom day wax fii ni ku nekk day da nga am daraja ba nga méngool moo ñu indi ci kaw suuf ngir ñu jaamu ko mu tëral fi ay ndigal tëral fi ay tere doomu aadama yi nag topp ci loolu su ko defee képp koo xam ne yaa ngi jëf lu baax mi ngi lay yéege ci kaw daraja yu kawe ya lu bon ma ngi lay wàcc ca darakaat ya muy place yu suufe ya léegi nag yow doomu aadama yaay seet bu la neexee bokk ci ñiy yéeg di dem bu la neexee bokk ci ñiy dellu gannaaw bu la neexee di dem bu la neexee di dellu gannaaw loolu la borom bi di wax naan liman shaa minkum an yataqaddama aw yataaxar kullu nafsin bima kasabat rahina comme neex daal jiitul def lu baax comme neex dellu gannaaw def lu bon waaye ku nekk day la nga liggéey mi ngi lay xaar résultat liggéey boobu àllaaxira lay teer ña nga xam ne ñoo nekkoon ca lu bon yàlla dajale leen dugal biir sawara suñ demee sawara ku nekk la nga méngooloon ci lu bon loolu mooy sa place ba ngay war a duggee moom la borom bi di wax naan wa li kulli baabin minhum juz'un maqsum am na juróom ñaari bunt bunt bu nekk ku nekk la nga liggéeyoon mu méngoo foofu ngay duggee amma bu dee aljanna sunu boroom def na ko juróom-ñetti bunt waaye def na ko téeméeri daraja daraja ba gën a kawe mooy firdawsil aala yal na yàlla yegg lañu fa waaye gannaaw ba noonu lay demee di wàcc di wàcc di wàcc ba baa mu nekk téeméeri daraja loolu it moo tax ba galawaay jullit del góorgóorlu foo mën a toll di bokk ci ñi gën a jege sa borom di bokk ci ñi nga xam ne dañuy yéeg te sa borom mu ne li ngeen di def sàggane wu ma ci dara ca grade bi gën a kawe ci diine mooy li ñuy tudde ihsaan ihsaan mooy lan mooy foo mën a nekk nga am yëg-yëg ne sama borom yàlla day mi ngi ma tiim mi ngi may gis mi ngi may dégg mi ngi xam li nekk sama biir xol loolu yëg-yëg boobu boo ca nekkee dana la sàmm dimbali la ba doo def loo xam ne ëllëg bu ñu la taxawalee ci kanamam mu mën laa indil la nga xam ne mooy musiba seen borom yàlla sàgganewul lenn lu ngeen di def borom boobu nga xam ne nag moo ñu saytu mu waroon a jur tiitaange bu rëy waaye bokk na ci it ne mu ne yonent bi alayhi salaam wa rabbuka sa borom. rabbu mooy ki bind ki moom ki taxawi ki jubbanti ila axiri sa borom yàlla day mooy alxani mooy ki woom la ci ay jaamam yàlla soxlaalu lenn ci ay jaamam e yow julit xamal ni lu la sa borom yàlla digal rek loolu sa intérêt la lu la sa borom yàlla tere loolu sa intérêt la waaye sa borom mooy alxani mi ngi noonu heure boo bàyyee tereb yàlla sa bopp nga lor loroo sa boroom heure boo defee santaane bi yàlla sa bopp nga lor loroo sa boroom ndax sa boroom mooy alxani soxlaalul kenn dara noonu mu nekk alxani moom dong nag mooy alxani keneen ku dul moom dafa soxlaal borom bi subhanahu wa taala borom bi nee na yimsiku samawati wal ardi an tazula wala in zalata in amsakuhuma min ahadin min baadi moo téye asamaan yi ci asamaan mooy lu la féete kaw rek asamaan yi juróom-ñaar kursi arsh rahman lépp mi ngi dellu ci kattanug yàlla mu leen téye téyel ñu suñu suuf téye ñu ñun ñi mooy alxayul qayyum moom dong mooy ki taxawe lépp ñépp soxlaal ko moom la soxlaalul kenn dara yaa ayuha nnaas antumul fuqaraau ila allah wallahu alganiyul xamid borom boobu it mu ne mooy zur rahma mooy borom yërmaande ji rasul sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla day bind na téeméeri yërmaande juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent man ko dencal boppam ngir jagleel jagleel ko waa aljanna yal na yàlla boole ñu ca benn ba la jël séddile ko ay mbindaafan nit ak jinneeg bàyyi ma yépp benn cër ca téeméeri cër ya la jël séddale leen ko noonu mu leen ko séddalee it noonu la yàlla bëggee jaamam yi am yërmaande sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne irhamu man fi l ard yarhamukum man fi sama képp kuy yërëmaate yàlla dana la yërëm ku dul yërëmaate yàlla du la yërëm loolu tax mu jox ñu ci ay misaal yu kenn munta paase benn soxnaa ngi nii tabbi sawara ngir ñàkk yërmaande bu mu defoon ci benn muus waxul benn nit de benn muus loolu koy bu sawara benn keneen mi ngi nii moom tabbi aljanna ngir yërmaande bu mu jagleeloon benn xacc xacc xul sax doomu aadama wala lu mën a doon mi benn xacc loole muy wañu ne kon mbokk ku nekk ci ñun war ngay jéem a entraîner sa bopp di am yërmaande ci jaami yàlla yi ñi gën a baax ci jaami yàlla yi ñoo ëpp yërmaande ci jaamu yàlla yi day gis koo xam ne yërmaande mi ngi yem ci ay doomam am koo xam ne yërmaandem mi ngi yem ci ay xameem am koo xam ne yërmaandem mi ngi dem passé mbooli mi julit loolu tax rasul sallallahu alayhi wasallam suñu borom mu ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow sa yërma sa li ma la yónni mooy ngir yërëm doomu aadama yépp ak mbindaafar yépp moo tax mu yónni la moo taxoon rasul sallallahu alayhi wasallam amoon yërmaande ci mbindaafar yi doomu aadama yépp keroog ba ko suñu borom waxee teema laa yónnee malaaka mu jàppale la tund yi wër makka ñu dóor ko makka gannaaw bañ ko soofantalee ca taif waa makka génne ko def na ay suñu borom bàyyi leen mën na am yàlla génn ci ñoom ay njaboot gu lay jaamu sallallahu alayhi wa sallam guddi lëmm mu koy julli di ñaan yàlla ay yàlla sama xeet bii nga ma yónni yàlla boo leen alak ni nga alagoon xeet yu jëkk ya te loolu mooy lan mooy ngir yërmaande bi yàlla defoon ci moom yàlla na yàlla def ci ñun yërmaande sa borom nag mooy zur rahma xamal ne yërmaande gi gën a rëy gim ñu wàcceel wallahi du ndox de ay waay ndox ay xéewalu yàlla du oxygène bi ñuy noyyi ak ay xéewalu yàlla du soxna yeeg doom yi ak ay xéewalu yàlla waaye yërmaande gi gën a rëy mooy alquran ji mu jox ab yonentam mu wàcce ko ci ñun ku la ci ëppale moo la ëppale ci yërmaande yàlla ku la ci gën a ñàkk même bu doon trésor kaw suuf ci loxoom la nekkit ko perte la ko ñàkk la ci yërmaande yàlla zur rahma mu ne nag su ma neexee yóbbu leen indi ñeneen ñu leen wootu comme ni ma leen jëlee ci seeni maam yoo xam ne nii ñoom passé nañu mbokk suñu boroom suuf si muñ ci indi daf ñu fi indi de génération en génération ñii nekk ci jàkka ji man ngaa waat ne téeméeri at ci gannaaw kenn nekkuloon ci kaw suuf téeméeri at ci kanam kenn bëggul mu fekk ko ci kaw suuf am déet yaakaar naa kenn ci ñun bëggul téeméer at ci kanam fekk ko ci kaw suuf de loolu kon muy wàññi ne noonu lañu fi yàlla subhanahu wa taala di jële jël googu nag mooy allatif moo koy def ca dara du yëngu lu bari ci yéefér yi bi leen yàlla sante ñu jaamu yàlla ñu bàyyi fa jaamu yàlla ga dañoo dem di lijjanti àdduna suñu borom mu ne ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya bokk na ci yooyu ay coono yu rëy rëy rëy yoo xam ne nii yenn recherche yi même ay données si ak yépp dugal nañ ko ci pour di xool ñaata nit ñooy dund ñooy judd ci kaw suuf ak di dee ci kaw suuf da ngay gis ne am na rapport yu ñu ci génnoon ay 2015 ñu ne à peu près dana am 232 000 personnes yuy judd année bu année bus bu nekk 232 000 bus bu nekk amma bu dee déegee dana am cent soixante dix mille personnes yuy dee bés bu nekk bis bu yàlla xëy ñi ci kaw suuf yàlla rocc ci cent soixante dix mille loolu benn moyenne la waaye suñu borom yàlla ci deux mille onze gii passé xaw ma fële ci Indonésie bi mu yëngatee géej gi tsunami boobu ci minute yu néew ramassé na trois cent mille personnes dugal ci biir suuf am déet mooy seen borom su ko neexee jël leen immiñe leen loolu mbokk di mbir moo xam ne ku nekk ci ñun war na góorgóorlu bàyyi ci xel borom boobu nag mu ne ay yow yonent bi nee leen li ñu leen digge day luy am la ca kenn ci yéen du rëcc mbokk suñu borom digg nañu nee nañu danañu yóbbu ca digg nañu ne kenn du rëcc na am génération yi njëkk yi kenn rëccul waaw bu ñu dajalee fu mu ñu jëme bu dee ne sunu maam yi ñun ñoo leen remplacer. ñu nit sunu njaboot mi ngi ñëw ñu di remplacer fu ñu jëme mag ñu jëme ci benn daje boo xamee ni nii lam fa digee mooy aljanna ñeel ña ko topp sawara ñeel ña ko doon mooy innama tuaduna la aat wa ma antum bi mujizin kenn du mën di ci sa borom léegi nag lii moom wax nañ ko leer na kon yow yonent bi bul sonn nee leen ay yéen saw xeet liggéey leen ci seen place ay ci seeni doxalin ñu nit ñi ngi liggéey ci suñu place ay ci suñuy doxalin nga noonu su neexoon yàlla day def ñaari suuf suuf bee mu def fa yéeféer bi suuf bee mu def fa jullit ñi waaye bokk na natt bi mu nattu nit ñi ñooy ànd am maana jëf yi ñooy wuute man ngeen bokk ndey ak baay seen jëf wuute nekk ay dëkkandoo seen jëf wuute nekk benn bureau seeni jëf wuute ala kulli xaal mooy liggéeyu leen ci seen gisin seen place ñu nit ñoo ngi liggéey xel sa ngeen a xam kan lay ñeel mujj kër ga ca uqba door mbokk ma muy aljanna kan lay ñeel mujj gu rafet ca loolu yi tamit ci àdduna mi ngi ñeel ña nga xam ne dañoo déggaloon seen borom moo tax suñu borom tëje ko ni du texe mukk ña nga xam ne ñooy tooñkat yi tooñ ñaar la tooñ sa borom ci bokkaale ko mooy tooñ gi gën a rëy tooñ say moroom ci tooñ leen loolu day jur alkaangeeg àdduna alkaangeeg alaxira yal na yàlla booluñ ci jaamam yuy texe ya
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون barakallahu fiik suñu borom mu ni wa ja'alu lillahi mimma zaraa ña ngay def ñeel yàlla ca la nga xam ne yàlla ko bind min alxarsi wal anaami nasiba la yàlla bind ca tool ya ak ca jurga ña ngi cay jagleel yàlla ab cir fa qaalu haada lillahi bi zaamihim ñu ne cir bii de ñeel na yàlla ci seeni njort wa haada li shurakaina amma cir bii nag moom ñeel na suñu bokkaalekat yi la ñuy bokkaale fa ma kaana li shurakaihim la nga xam ne ñeel na ña ñuy bokkaaleeg yàlla fala yasilu ila allah loolu moom du yegg ca yàlla wa ma kaana lillah lan jagleel yàlla nag fa huwa yasilu ila shurakaihim loolu mooy yegg ca seen bokkaale ya mi ngi noonu saa ma yaxkumuun ak a ñaaw la ñuy atte wa kazalika zayyana naka nii day la taarale li kasirin min almushrikin ñeen ñu bari ca bokkaale kat ya qatla awlaadihim rey ga ñuy rey seen doom ñen ñoo leen ko taaralal mooy shurakaa'uhum la nga xam ne mooy seen bokkaale ya la ñuy bokkaale li yurduhum ngiree ñu alak leen pertloo leen wal yalbisu alayhim diinahum wal ak nga gannaaw ba it ñu lëntal ci ñoom la nga xam ne mooy seen diine jaxase leen ko walaw shaa allahu ma faaluhu bu neexoon yàlla nag duñ ko def fazaruhum wa ma yaftaruun bàyyi leen ak la ñuy dóoral mi ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi ñëw fii ci loo xam ne arab yi dañ ko daan def lu bari ci ay yi ñuy jàng ku mel ni Ibn Abbas daan wax ba bëggoon a xam ndafuk arab avant yàlla di yónni yeneen ci yàlla bi jàngal ca aaya ya nga xam ne ñooy mujj ci suratul an'am bokk na lu ñu daan def mooy bu ñu demee ci jur gi ak ci tool yi ñu jël ak jur goo xam ne dañ ne lii moom yàlla lañ ko jagleel kenn du ko lekk kenn du ko war kenn du ko nangam yàlla lañ ko jagleel tool yoo xam ne nii dañ ne lii moom toolu yàlla la kenn du ci lekk kenn du ci def dara loolu gannaaw ba nag ña ñuy bokkaale seen xërëm yi ñoom it ci jur gi ñu wut ñu ñu leen jagleel lii day pour hubal la lii day pour uzza la lii day pour nangam la su ko defee dañ daan def bu ñu masaan a bay mbay ma daa di baax ca toolub yàlla tool bañ jagleel xërëm yi amul dara ñu ne ah yàlla moom ku womle la daa di jël lañ jagleeloon yàlla daal di koy jagleel la nga xam ne ni moom mooy xërëm yooyee borom boobu nag subhanahu wa taala ni ak a ñaaw li ñuy atte bokk na ci seen ñaawaayu atte mooy mbokk suñu borom yàlla jàng nañu sànq mooy al alxani suñu borom yàlla du lekk du naan lu muy doy ab tool bu ñu koy jagleel gis ngeen mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala mu ne may wërsëgal soxluwuma ku ma leel soxluwuma ku ma jox dara ñoom nag ñu ne lii jur gi moom yàlla moo ko moom jur gi kii bi tool bi yàlla moo ko moom gannaaw ba yàlla mi nga xam ne moo moom lépp bind lépp ñeel doomu aadama mu ne xalaqa lakum ma fi l ardi jamia lépp lu nekk ci kaw suuf maa leen ko jox yéen yéen ko moom ñuy am lu ñuy jagleel borom bi subhanahu wa taala ñaaril ba it mooy musiba bañ def mooy la ñuy bokkaaleeg yàlla lañ gën a fonk yàlla jalla wa ala ca loolu itamit mbokk lu bari ci nit yi tey dañ ciy tarxiis masalan tey ak a bari ay nit ñoo xam ne alal ji leen yàlla wërsëgal ne leen génne leen ci zakat tey jii yàlla mënoon na la nattoo ñu ne yow mii de am nga quarante millions waroon nga jël un million ne xam ne un million bii day moomoo ko suñu borom yàlla moo ko moom joxal ma ko fuqaraaw yi yow nga jël non seulement un million bi joxoo ko fuqaraaw yi waaye nga jël trois millions dem ci koo xam ne mën na laa jënd jënd seen famille ñëw daal di ko koy jox mu dugal ci compte bancaire am yaag yéefir yi nga xam ne dañ daan jël tool ne lii kat mbiri yàlla la waaye nañ ko jox xërëm yi ndax yàlla ko woomle la loolee mbokk yéen a yem ci yéen ñëpp ay tooñkat ngeen tooñ mooy teg mbir fa mu wërte tege loolu moo tax ba ngalawaay ku ci am nit koo xam ne xam nga ko yàlla may ko alal na ko laayi biir sénégalais ku bëgg diine la événement yi am ci réew mi kenn xamul c'est des centaines d'événements nit ñi ñoo koy financé da ngay gis koo xam ne jàpp ne na maadaama ba ñu wootee xew ma man kat jël naa dix millions investir ci ku mel noonu digganteem ak yàlla jàpp ne ne moom baax na alal jëm yor jël ne ci ca joxe yàlla tax waaye mbokk loolu mënulaa teggil zakat abadan cent mille francs yi nga war a génne zakat jox ko ña ko yeyoo bu doo defoo ko soo jëloon cent millions cent millions nga def ko ci loo xam ne dañ naan liggéeyub lislaam la loolee cent millions yooyu yàlla gisu ko ndax loolu naafila la te yàlla balaa nangu say naafila nga jëkk a julli farate bi ak ba pare waa ji nga xam ne fajar jot na julliwul fajar xanaa daal bi jant bi fenkee ñaari rakk yu jeex mu dóor beneen ñaari rakk yu jeex mu dóor beneen ba ba timis di jot ndax rakkam yu yàlla dana ko considéré déedéet loolu it kon di ñuy bàyyi loo xel ci loolu ngallaawaay mbokk nañuy xàmmee aqu yàlla ak leneen loo xam ne ak coobarewu la borom boobu nag subhanahu wa taala kon loolu la wax ni lu mel nii it moo leen yóbbu ba seytaane yi ak seen kilifay buxaaba yi taaral ci ñoom rey ga nga xam ne dañ ko doon rey seen doom ya ngir lëntalal leen seen diine ya mbokk arab yi jëkk ya daan nañu rey seen doom ngir ñaar rey ko ngir màggali ko xërëm wala rey ko ngir ragal ak ñàkk doom yu jigéen ñi moom lu bari dañ leen doon rey ngir bañ ñu gàcce leen ëllëg ba suñu borom naan wa ida almawudatu suilat bi ayi zanbin qutilat mboolem xale yu jigéen yi ñu reyoon daañ leen la ban bàkkaar lañ defoon ba ñu rey leen allahuma mbokk rey googu nga xam ne arab yi tamit dañ ko doon rey seen doom mu nekk lu ñaaw waaye bokk na ci tamit seytaan yi tey ni ñu taarale jullit ñu bari ñu rey seen doom rey bu gën a bon nga arab yi doon rey arab yi bi ñuy rey seen doom dañuy nekk ay xale yu juddu ñu suul leen suñu borom mu ne daañu leen laaj ëllëg mën nañ rafet njort ne xale yooyu yàlla du leen mbugal am maa ñu ci tey nu ñuy def mooy da ngay jur sa doom doom bi xamuloo ko yàlla xamuloo ko yonent yàlla jàngaloo ko ay tubaab sànni ko dëkk tubaab lan ngay xaar ci moom mooy alal joo xam ne dina la jël jox la ko am maa comportement digganteem ak boromam sa yoon niwu ci moo ko xale bi rey nga ko reyin bu gën a ñaaw ga arab yi doon rey loolee kon ku ne ci ñun war a bàyyi xel ci loolu bu baax mbokk doom bi la ko yàlla lay jox du woon pour mu liggéey alal jox la wërsëg bi suñu borom nee na maa ko gàddu am déet wax ñu ko ñaari yoon ca an'am ak ca isra bu leen jàpp ne wërsëg dafay jóge ci seeni doom wala seeni doom dañuy wàññi seeni wërsëg borom bi mu ne nahnu narzuqukum wa nahnu narzuquhum wërsëg ci loxo yàlla la nekk kon xale bi lan noo war a nekk ci moom priorité fexeel ba def ko ab jaamu yàlla ndax nag ëllëgi ki si biir dafay doon koo xam ne menuisier la maçon la architecte la médecin la professeur d'université la loolu mbir la yoo xam ne day dolleeku waaye cosaan ba mooy fexeel ba mu nekk ab jaamu yàlla képp nag koo xam ne nii ay xalaatam mooy sama doom nu muy def ba réussir sans mu jaamaloo ko yàlla ku mel noonu seytaane perteloo na ko ku mel noonu seytaane lëntaloo na ko moom tax borom bi ni bàyyi bàyyi leen ak la nga xam ne ñoo ngi koy jëf mi ngi noonu Cheikh Ali
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يقربها إلا من نشاء لا يقربها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالقة لبطوننا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفاها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء
barakallahu fii suñu borom mu ne wa qaalu haadihi an'aamun wa xarasun xijr ña nga naan jur gii day ak tool yii day lu ñuy fekk la laa yat'amuha illa man nashaa'u bi za'mihim kenn du ko lekk lu dul ku ñu soob ci seen coobare ya wa an'aamun xurrimat zuhuruha ak jur goo xam ne araamal nañ gannaawam ga ay kenn du ko war kenn du ca suf wa an'aamun laa yazkuruuna isma allahi alayha ak jur goo xam ne buñ koy rey kenn du ca tudd kenn du ca tudd yàlla iftiraan alayhi li lépp ngir dóoral ci yàlla rek sa yajzihim bima kaanu yaftaruun daañu leen fayee ca lañ ñekkoon di ko dóoral wa qaalu ma fi butuni hadihi al an'am ña nga naa nit li nekk ci biiru jur gii day xaalisatun li zukurina daañ ko def mu lu ñu jagleel sunu góor ñi ci ñun wa muharramun ala azwajina waaye dana doon lu ñu araamal ci suñu soxna yi wa in yakun mayta maytatan bu dee nag daa judd doon midd moom fa hum fihi shurakaau ñoom ñëpp mën nañ caa bokk lekk sa yajzihim wasfahum suñu borom mu ne danaa leen fay seen la ñuy melal innahu hakimun alim moom mooy ki xereñe ki xam lépp qad xasira alladina qatalu awlaaduhum safahan bi gayri ilm perte na dañu rey seen doom ya ci ak ndof bu àndul ak benn xam-xam safahan mooy doyadi bu àndul ak benn xam-xam wa xarramu ma razaqahum allah ñooñu nga xam ne araamal nañ la leen yàlla wërsëgal iftiraan ala allah ngir di dóoral ci yàlla kese qad dallu ñoom di réer nañu wa ma kaanu muhtadin te nekk ñu woon ñuy aju jub ñi ngi noonu bokk bokkoon na ci lu arab yi daan def ba tey mooy xool ak jur ak i tool yoo xam ni dañ ne lii day moom ña koy lekk mooy kilifa yi ci ñun ñañ ca neex waaye du képp kum neex nga lekk ci loolu daanañ am ay façon giléem yoo xam ne rawatina li ñu naan tudde ay xaam mooy giléem boo xam ne tëb na ba am ca doom ñu dem ba doomam di commencé tëb ñu ne kii moom dañ koy jagleel yàlla yi kenn dootu ko war kenn dootu ko sëf dañ koy bàyyi noonu rek ba mu dee ak ay jur yoo xam ni ku koy rey doo ci tudd yàlla xërëm bi kese nga cay woo lii lépp ñi ngi koy def ngir dóoral ci yàlla waaye yàlla mu ne danaa leen fay la ñu nekkoon di ko def lii mbokk dañuy gis ne arab yi daanañ ko def waaye seytaane bi jàngal arab yi mooy jàngal nit ñu ñuul ñi rek tey da ngay dem ci nit ñi ñoo xam ne reyatuñu ay nit waaye xërëm yi nga xam ne mooy xàmb yi ñuy jaamu ak jinne yi ñuy jaamu béy wu ñuul waag nag wu ñuul waag siquub téere gaag yooyu yépp dañ leen doon ñu leen koy reyal léeg-léeg nga dem ci ay kër gis benn xar mel ni melo ñu ne xar bii de sarax la kenn du ko laal dañ koy bàyyi ba mu dee kese mbokk yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne sorewu rek la arab yi daan def borom bi subhanahu wa taala mu ne daanañu am jur goo xam ne dañ naan kii de lu mu jur moom góor rek am droit lekk ko jigéen amul droit lekk ko xanaa lu dul mu médde bu méddee moom góor ak jigéen am nañ droit lekk ko yii yépp mbokk lan la ñuy jàngal mooy tëral araamal lu yàlla araamalul wala daganal lu yàlla araamal lii képp koo xam ne yaa ngi koy def taxaw nga palaasu yàlla képp koo xam ne nangul na la loolu ku mel noonu jàpp na la ngay yàlla ca loolu mooy bokkaale yàlla ci wàllu topp loolu di mbir yoo xam ni ngelawaay nañ ci bàyyi xel ñu bari dañoo jàpp ne maadaama kii kilifa ak diine la lu mu digle dañ ko war a def ba léeg-léeg nga dégg ñu naan taalibe de ci kanamu sëriñam daa war a mel ni ab néew bu ñuy sang ab niiw moom doo ko sang mu naan bul lal fi bul lal fi kon lépp loo xam ne moom dañ la koy digal bul xalaat bul expliquer dama rek nga daal di def mbokk loolu képp koo xam ne jàpp na ko na xam ne du njàngalem lislaam donte ne bari na jotaay yoo koy dégg rasul sallallahu alayhi wasallam yónni na benn sariya benn armée bu ndaw am benn ci sahaaba yi mu def ko seen amir ñu dem ba ci diggu yoon bi mu jàppante ak ñoom doon ko mer taal benn taal nga xam nga yeneen ci baay sam ne ni ngeen déggal ñu ne ko waaw waaw mu ne dem leen dugg ci taal bi gaa yi taxaw ne ah mais ñun bi ñu topp yonent bi ngir mucc ci sawara moo tax léegi bëgg dugg sawara ah gaa yi na ko daal dëgg dëgg daal loo ñu sax dañ ko def waaye li ma mënuñu ko mais bi ñëwee ci yonent bi alayhi salaam wax ko def ni su ngeen duggoon ci sawara bi du ngeen ci génn ba faw ngi noonu loolu mooy mbokk da ngay gis ay léeb yu ñuy léeb ne benn sëriñ daf doon nattu taalibeem ne ko ñu toog bu mujj rek mu ne ko yow ndax yow yow nangu nga samay ndigal mu ne ko ah sëñ bi man de déggal naa la de mu ne ko dama la indil ma sa bopp bàyyi rek waa ji ne bërit dem kër ga nee na ñoo fekk bàyyi baa nga aye ca kër tànta ja mu ñëw rek dagg bopp baay bi bi mu daggee bopp baay bi indi ko daal dina ko sëñ bopp baay baa ngi nii sëñ bi na ko xoolal mu xool ne ah kii du sama baay de ñu ne kon tante ja moo amoon ku ñëwoon di njaaloog moom léegi moom mu dem rey ko indi bopp ba ñu ne nag misaal boobu ci la ñuy joxe ci ni sëriñ bi lu mu santaane da nga ko war a def mbokku islam jàngalewul noonu yal na yàlla yërëm benn ci kuñ may nettali fii ci Sénégal daa dem yor ñeenti jabar sëriñ bi daa di koy bind lettre na ko may naa la soxna diw mu ne ko ah sëñ bi baal ma de daa fekkan ma yor ñeent mu ne ko waaw jël ko rek ndigal la mu ne ko baal ma de ndigal du ko fi jiitu yaa ngi dégg mooy ndigal yàlla moo ko fi jiitu borom ne nañ yem ci ñeenti soxna loolu mbokk kon ñu bàyyi ci xel bu baax képp koo xam ne taxaw ni di daganalal doomu aadama lu yàlla xaraamal wala képp ko taxaw fekk li yàlla daganal doomu aadama wëlbati ko di leen ko xaraamal ku mel noonu mi ngi taxaw place yàlla waaye képp ko ko déggal ci loolu ngal la waaye xamal ne yaa ngi koy def yàlla mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel loolu borom boobu nag subhanahu wa taala ni perte na day ñi nga xam ne dañoo rey seeni doom ngir doye di gañe doye di teguñu ko ci benn xam-xam mbokk doom ci xéewal yi gën a rëy gu yàllay jagleel doomu aadama ci kaw suuf la loolu moo tax ba coono boo mën a daj ci moom rek njëriñam ëllëg moom moo koy ëpp loolu nag da ngay gis bu dee ci wàllu àdduna rek sax neex na comprendre amma ñun jullit la ñuy séentu ci suñuy doom du njëriñu àdduna waaye lañ cay séentu la ci gën a rëy mooy lam ñuy jëriñ suñu wàllu diine doomu aadama bi mboolem ay doomam lu ñu liggéey ci lu baax dañ ko koy bindal doomu aadama bi heure boo deeyee bàyyiwoo sa gannaaw lu gën a màgg xam-xam bu ñuy jëfe sarax boo xam ne buy wéy la ak doom yu baax yu lay ñaanal ba ku mel noo Umar ibnul Xattaab nee na moom day daana takk ay soxna di sàkku ci ñoom njaboot dara taxukul mu koy def lu dul am njaboot guy jaamu yàlla gannaawam gis ngeen loolee kon lépp loo xam ne nag moo ñu yóbbu ci rey suñu njaboot ca bi ñu yàlla nattoo occidentaux yi daal di jiite adduna bi gëmloo nit ñi ni ñoom seen civilisation mooy bi gën a baax suñu intellectuel yu bëri dugal nañ leen ci li ñuy tuddee planning familial mooy boo xisee ba am ñaar ñett loolu famille nombreuse la loolee mbokk da ngay gis ne. calcul calcul adduna la amma kii calcul calcul àllaaxira du calcul noonu tey jii da ngay gis erreur lu mel ni Chine gi demoon nañ ba ne ñoom kat dañoo bari kon lay gën a ko la yem ci benn doom waaye ñoo ña maadaama yéeféer la ñu gëmuñu yàlla mais ñu nekk un milliard de personnes xiifu ñu maruñu buñ nekkoon trois milliards ndax daañ xiif daañ mar déedéet mais ñu ne ne ku ne am benn doom léegi lan moo xew ñoom ñépp comme benn doom ngay am benn doom bu góor ngay bëgg a am ba bi ñu mujjee def seeni gëstu demoon nañ ba am cinquante millions ci ay chinois yoo xam ne buñ bëggoon a sëy duñu am soxna lu tax moo di ne ne ndax góor ñi ëpp loolu jigéen ñi ba loolu façon wooye fal bu nekk ñu ngi ko ci def léegi loolu mbokk muy wane ne bu dee ñun diinul islaam yeneen ci bàyyi islaam dañu doon wax tazawadul waludal waduda takk leen soxna yu yu leen bëgg soxna yi mën a am doom man day sama xeet dinaa ko pookaréew yawmal qiyaama te fu yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw ne ah yàlla sama borom cinquante milliards yi ngi ni mu indil la ko suñ cam taxaw ne yàlla vingt cinq doom yi ngi mu indil la ko yaakaar naa da nga mën a am kii loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax lépp lu lay yóbbu ci yàq sa njaboot pertange la li yurduhum waaye it ngir jaxasal leen seen diine ca dara gunte ñaaw tiim sa doom di ko rey ca wax nañ leen it reyin bi ñaari reyin la gas ko suul ko ak suul la nga xam ne moom mooy diineem ñaar yooyu yëpp benn baaxu ci borom boobu nag subhanahu wa taala ne réer nañu ca bokkuñu woon ciy jub mi ngi noonu Cheikh Ali
وهو الذي أنشأ جنات موشاة وغير موشاة والنخل وغير موشاة والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمنه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
jazakallahu xayra suñu borom mu ne wa huwa alladi anshaa jannatin maarushat mooy ki nga xam ne moo sos jardin ya nga xam ne dañ koo mbaar ñu ngi noonu muy yomb yaag yu demee na nga xam ne day law nekk mbaar amul ay dat wa xayra maarushat ak yoo xam ne nekkul lu ñuy mbaar wa naxla ak tàndarma wa zar ak mbay muxtalifan yoo xam ne dafay wuute ukluhu lii di lekkam ga mooy cafkam ga wa zaytuna yàlla mu ne moo sos olive wa rumaan moo sos li ñuy tudde grenade mutashabiha yoo xam ne luy yuy nuroo lay doon wa xëyra mutashabih ak yoo xam ne nuroowul kulu min samarihi ida asmara lekk leen ca meññ ca meññeet ma heure bu meññee wa aatu xaqahu yowma xasaadi ca ngeen joxe aqam bis da ngeen koy góob wala tusrifu waaye nag bu leen yàq innahu la yuhibbu almusrifin yàlla de bëggul yàqkat ya wa min al an'am ca juruga it xamulatan maa leen ci defal loo xam ne day yenu muy giléem ya mi ngi noonu wa farsha ak loo xam ne dañ koy jël di ko jëfandikoo ñuy jëfandikoo ci lekk ga ak der ya ak meew ya mi ngi noonu kulu mimma razaqakumullah lekk leen ci li leen yàlla wërsëgal wala tattabi'u xutuwaati shaytaan bu leen topp mukk lii di jéegoy shaytaane ya innahu lakum aduwwun mubin shaytaane nekk na leen noon boo xam ne noon bu bir la mi ngi noonu mbokk suñu boroom jëree bëgg jaam yi bëgg ko gannaaw bañ ko màggale te loolu xamal ne wàllu gu rëy li ci jaamu yàlla suñu borom dañ ko war a màggal waaye dañ ko war a bëgg tey da ngay xool rek nit na yow bu doon dafa ñëw tey tabax kër may la jël oto jox la jël dépense jox la di la jox ay yére di la jox lu nekk mbokk ku mel ni doo ko bëgg a waay kay lépp loo xam ne nag dañuy xam ne am nañ ko ci kaw suuf wa ma bikum min ni'matin fa min allah suñu borom yàlla su ko neexoon dañoo indi ci kaw suuf lan la ñu fiy indil mooy pepp ak dugub kese noonu ñu koy pepp ak ndox kese jeex na pepp ndox terminé fokk nga lekk ko di fokk nga naan terminé waaye moo ko xoolal ñaate million ay espèces ci ay fruits ci ay légumes ci ay yu kenn xamul lu doomu aadama waxuma lu muy dunde waaye lu muy bànneexoo rek yoo xam ne sax mënoon na ñàkk mais yàlla may ñu ko pour ñu koy bànneexoo rek bokk na ci loolu mu ne moom moo tëral jardin yi maarusha lu mel ni raisin yi ak yu demee noonu moo ñu may lii di tàndarma di xéewalug yàlla goo xam ne kenn xamul ñaata moo nekk ci tàndarma ci ay vitamine ci lu mën a jëriñ doomu aadama mbay ñaata façon la doomu aadama di mën a recenser ci lu mën a lekk ci ay pepp yoo xam ne yépp benn bokk ci ak sa moroom boo lekkee ceeb xam lii ceeb la lii mboq la lii saaña la lii suuna la lii tiñ la yii ila axiri borom boobu subhanahu wa taala may ñu la nga xam ne muy olive nga xam ne nii des koy utiliser diw ga di ko utiliser ci lekk mu am am njëriñ loolu ci doomu aadama li nga xam ne muy grenade ya ak yeneen ak yeneen borom bi mu ne am na ci yoo xam ne dana nuroo am yoo xam ne nuroowul soo demoon ci tàndarma yi man nga caa fekk lu ëpp téeméeri téeméeri façon tàndarma yu bokkul raisin ya naka noonu ñu ngi noonu amul benn façon ñëwal Sénégal nga dellu ci mango yi ñaata façon mango moo am suñ caam ñu ngi noonu kenn xamul lépp loo xam ne nii yegg na ci lu ñuy jëfandikoo waxuma suñu borom dañoo may mbir mi mais ci biir dañ caa defal yoo bari bari yoo xam ne benn bokku ci ak sa morom caf ko loolu ngir xéew la borom bi subhanahu wa taala mutashabihan ñu nuroo ci ay melokaan xëyra mutashabih waaye bokkuñu ca la nga xamee ni ni mooy la aju ca cafka ga ak la ñuy jëriñ borom bi nag mu ne lekk leen ci meññet yi heure boo xam ne meññ na ca mbokk suñu borom mi ngi noonu moo ñu bindal li nekk ci kaw suuf ngalawaay loo ci mën a lekk-lekkal rawatina yi ñore sa réew xamal ne suñu boroom deful lenn ci hasard deful lenn ca làmbatu lépp rek intérêt la yow doomu aadama bi xamal ne sa biir yaram bi am na lu ci mango di faj wala am na lu ci mango di défendre ba du la dal naka noonu orange ji ñebbe ji lépp loo xam ne day ñor ci di la wër imma boo ko lekkee am na lum lay yokk wala am lum lay défendre ba tax suñu borom mu ne lekk leen ci meññeent bi nga xam ne nii defal naa leen ko heure bu ñoree loolu ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne ne joxe leen ak xam heure bu ngeen koy góob aaya yi mi ngi wàccoon ca Makka da ngay gis ni lan moo nekkoon aqu zakat mooy tool bi heure boo ko wittee wala nga góob ko wool fuqaraaw yi ak miskin yi nga jox leen ca dara waaye bul jël lépp yóbbu sa kër amma bañ demee ba Madina nag la yàlla farataal li ñuy tuddi nisaab nisaab bi mooy lan mooy boo bayee tool bi asamaana ko arrosé xaaj ko fukki xaaj juróom-ñeenti yóbbul sa kër benn xaaj bi jox ko miskin yi bu doonte ne yaa ko arrosel sa bopp xaaj ko ñaar fukki xaaj fukk ak juróom-ñeent yi jëlal benn bi jox ko miskin yi lii la suñu borom yàlla wax nañ dañ ko joxe bis ba nga xam ne dañ koy góob waaye nag bu leen yàq yàlla bëggul yàqkat yi ca mbokk gis ngeen bokk na dund gu dal gu doomu aadama di am ci kaw suuf mooy nga digg doomu bañ a yàq yàq mooy musiba lépp rek commencé ci la nga xam ne mooy borom tool yi ndeysaan lu bëri suñu mbokk baykat yi suñu bayee ba jaay gerte rek xaalis bi dañ koy daal di pasar pasare mu jeex waaye baykat bu organisé waroon na au moins lépp lu mu bay mu xalaat ci ne mën na am déwén du baax kon naa ko xaaj ren ak déwén boog au moins ndax yéen a ngi fàttali ko jamono yonent yàlla yuusufa Yusufa waxoon na waa dëkkam da ngeen am juróom-ñaari at yu tegaloo léppay baax dana am juróom-ñaari at yu ñëw dara du baax kon fexe leen ci juróom-ñaari at yu jëkk yi ngeen waa waajal ci juróom-ñaari at yu metti ya ala kulli xaal yow mi nga xam ne yay salarié li ñu la fay xam nga ne dootoo fayee ko waat lu dul fin du mois bu ko bazarde ci une semaine yàlla bëggul yàqkat yi waaye yow mi nga xam ne yay jënd ay dépenses. ngal la waay la nga xamee ni ni mooy cinq mille francs doy na dépense bi bu ko def vingt mille francs tey boo demee Europe seen fitne bi gën a rëy mooy lan mooy yàq googu boo demoon lu mel ne États-Unis dañ naan la kaaru population bi dañu am feebaru obésité mooy feebaru rëy lu tax mooy seeni déchet rek moo ëpp mooy la américain di sànni ci poubelle yi rek moo ëpp li Afrique di dundee loolu kon mbokk ak yàq la goo xam ni suñu borom yàlla la yuhibbul musrifun islam da lay jàngal yàq ndox ak lekk ak lu mu mën a doon yow doonal ku dégg doomu borom bi nee na bul lem sa loxo ca gannaaw doon ko nay waaye bul yàq gi géppug yàq ndax ñooñu ay mbokk seytaane la innahu la yuhibbul musrifun yàlla bëggul ñi nga xam ne dañuy yàq borom bi wëlbatikuwaat mu ne xool leen ci jur gi it maa leen ci may jur goo xam ni da ngeen koy tàggat ñu leen di yenul loolu la ci ëpp ay giléem la doonte ne ni nag dees na ko tàggat ba mu nekk aw loo di mën a yenu comme ni giléem ak fas di yenoo ana am buñ ko waxee mooy giléem nag xar bëy li mooy ana am tàggatal naa leen ci loo xam ni da ngeen ci mën a utiliser ñu leen di yenul seeni bagage boo dellu woon ci suratu nahl borom bi subhanahu wa taala mu ne dana leen yóbbul ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqil anfus seen gilim mi daan leen mën a yóbbul ay charge yoo xam ne dana mënu leen fa woon a yegg lu dul ci taraayu bakkan waaye wa farsha may ñu gannaaw gilim yooyu di ñu yenul gilim nag ya xar ya bëy ya ñu leen di mën a tëral di leen rendi di mën a jëfandikoo seen meew der ya lañ ca mën a jëfandikoo ci ay néeg jëfandikoo ca ci lu ñuy sol kenn xamul nu mu nu mu toll ca boo demoon tey ci adduna bi ana ñaata la doomu aadama di jëfandikoo mi ngi jóge ci la nga xam ne mooy bàyyi ma yooyee waxuma lekk ga ak meew ba ñuy naan loolee mbokk da ngay gis mbir yu bari la yoo xam ne kenn mënu ko peeg suñu borom yàlla nag mu ñu li lépp maa leen ko def kon nga la waay lekk leen boo leen seytaane araamalal lu ma leen araamalul kulu mimma razaqakumullah lekk leen ci li leen yàlla wërsëgal waaye nag bu leen topp yoonu seytaan topp yoonu seytaan mooy lekk ci lépp lu xaraam wala xaraamal ci lépp lu dagan suñu borom yàlla nee na seen noon bi gën a màgg moom mooy seytaan innahu lakum aduwwun mubin yal na yàlla matal ay xéewalam ci ñun yal nañu boole ci ñi koy sant yal nañu boole ci ñi koy jaamu duñ ko bokkaaleeg dara wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw mu ne dafay aj Makka waaye dafay def ifraat ca mooy at kese lay def su paree nag lay dem ca masjid Aïcha armalaat pour def umra waaw loolu day lu bari ci sénégalais yi moom la ñuy def dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul leen waaye nag nañu xam ne loolu du sunna yonent bi alayhi salaam lam ñu fi bàyyee loon mooy ñetti façon aj ifraad mooy ak kese dim nibbi tamatoo mooy nga umra doog a aj qiraan mooy lënkale aj ak umra amma jëm makka ci ifraad ifraad ba pare dem nag sosaat umra loolee yonent bi alayhi salaam mi ngi ko jagleeloon yaay Aïcha ba lu tax mooy dafa demoon ba foofu yàlla def baaxu jigéen dikkal ko loolu mënul woon a matal umraam boobu waaye gannaaw Aïcha gisuñu woon jamono saxaaba yi saxaabatul kiram daan jëfe loolu ba tey it doo dem ci benn téere boo xam ne borom xam-xamu ko bind di jàngale wàllu aj loolu ñetti aj yi da lay jàngal ifraat tamattu qiraan lii nag moom ñi ngi koy def ngir jàpp ne Aïcha defoon na ko waaye dañuy wax Aïcha ba mu koy def mi ngi koy defoon ci ngant yow mi amul benn ngant nga def ko nag dañuy ñaan yàlla na la yàlla nangul waaye nag du sunna wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam xaru tabaski ñaata weer la war a am borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf mooy li ñuy tuddee jaza am na ñu ko tënk ci ne boo matee juróom benn weer baax na donte ne lu ëpp ci ñoom it rawatina ci côté mazhab Malik dañ naan il faut moom at su ko defee daal li gënoon a dal xel mooy nga am bu am at waaye daal waxasee ba passé juróom benn weer am na ñoo xam ñoom dañ ne baax na wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw waaw ci maam damay laaj man mooy njëriñu baat yi may bëgg wax maanaam a'uuzu bi kalimatillahi taammaati min sharri maa xalaq a'uuzu bi kalimatillahi taammaati min sharri maa xalaqa loolu mooy maa ngi làqu ci gannaaw kàddu yàlla yu mat yi ci ayu la nga xamee ni nii moom la bind yu mel ne yonent bi alayhi salaam daan wax ki nga xam ne dafay nekk ci ay tukki di wàcc ci ay place nee na place bi nga wàcc nga wax loolu boobaa nga fay jóge dara du la fa lor waaye xatta boo nekkul ci tukki lépp loo xam ne nii yaa ngi ca nekk sa kër la ak sa fu mu mën a doon ñaan la gu baax mooy maa ngi làqu ci gannaaw kaddu yàlla yu mat yi ngir mucc ci ayu lépp lu muy bind mi ngi mel ni rek bi nga naan a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq daanaka benn rek la a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq maa ngi làqu ci gannaaw ki nga xam ne mooy borom lépp loo xam ne lu ñuy xar la ci ayu lu mu bind auzu bi kalimatillahi tammati maa ngi làq ci gannaaw kàddu yàlla yi mati min charri ma xalaq ci ayu lu mu bind wallahu alam naam naam comme ni ñu koy tegalee tëbës xar moo gën koy topp si nag topp si bu leen koy topp bu dee xadina contraire la ndax nag mësal yëpp laa doon
ndax bu dee ne ci wàllu tabaski dañ ne xar moo gën bay topp ci nag topp ci giléem doog a ñëw bu dee tabaski bu dee nag makka moom hëddu yi giléem moo gën ndax mazhab yépp dëppoo nañ ci loolu moom xawma ko li ma xam daal moo di ne ne lu bari ci ñoom ñoom dañ ne bu dee aj makka giléem moo gën ndax la fay daje ci mbooloo ñu reyal leen giléem mooy gën ñu reyal leen xar bi te yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn at la def ca aj gam aj giléem la rey reyul xar loola tax ñoom ñu ne bu dee ne hëdiyoo makka giléem moom mooy la gën am maa nag bu dee tabaski nga xam ne moom dañuy dekkal mbiru ibrahim xar mooy la gën waaye laa shakka ne ibrahima ma reyoon ca munaa moom xar la reyoon mooy heure boo xamee ne aji nga makka nga rey xar xamal ne def nga sunna ibrahim am maa nag bu dee lu gën borom xam-xam yi am nañ ci ay juuyoo yonent bi moom la mu defoon mooy gileem la reyoon wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam ñi ki nga xam ne dafa julli jiwul tisbaar ndax day bàyyi ba jumaa ju julli ba pare moom mu doog a doon koo xam ne nii kuy julli la loolu day am na lenn ci fuqaha yu koy wax mais gisuluñu benn tegtal buñ ko mën a layal suñu borom nee na inna salata kanat ala muminina kitaban mawquta julli daal dafa am ñeel jullit ñi waxtu yu ñu xam léegi yow am nga ngànt ba demoo ca jumaa ja heure boo xamee ne nii waxtu julli bi jot na soo jullee la chaque ne sa julli sa julli boobu moom julli bu baax la loolu moom mi ngi noonu allahuma loolee borom xam-xam yéen nii ñi ngi koy wax ci lu mel ne góor gi nga xam ne dafa war a dem juma ñu ne kat yow comme amoo yaqin ci ne ngantil la tee juma mën na teggeeku diggante bi ngay demee juma kon bàyyil ba ñuy julli juma ba pare yow nga doog a julli loole ñoom loolu la ñuy wax ci wàllu googee waaye loolu moom xëy na beneen mbir la waaye jigéen bi nga xam ne wóor na moom demul juma ki wóor na moom am na yaqin ci ne man demuma juma ku mel noonu fu julli te fu tisbaar jotee ku mel noonu bu jullee tisbaaram baax na wallahu subhanahu wa taala aalam waa ji dafay liggéey ci toolu ceeb waaye moom courant ci ceeb bi lay jël mu fayee ko loolu bu dee ñoom kay ka kay jox courant bi nangu na loolu loolee la chaque ne amu ci benn problème lu dul ne bala koo fay ci ceeb bi fokk war naa jël zakatu ceeb bi xam ko ba génne ko fuqaraa ya la nga xam ne nag moom moom la moom mu jëlee ko doo koo fay ab courant mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal kon mbokk yaakaar na ñi nga xam ne dañuy séddoo seen surga yi nag ku ku ci génn ñi nga xam ne duñ la fay xaalis mais dañuy buñ fayee ñun yaay moom dama am bu dee bu bu dee séddoog surga ñaar moo ci am benn mooy da ngeen a séddoo li génn ci tool bi yéen a bokk tool bi léegi bu ngeen bayee séddoo loolee fokk ñu dem ba xam ne yéen ñaar ñëpp am ngeen nisaab su boobaa zakat doog leen war yéen ñaar bu dee ne bu ngeen doonee ñoo xam ne ñu séddoo amu leen nisaab loolee dañuy gis ne loolee nekkul du leen war bokkul loolu nag ak tey jii nga ne yow sur surga bi bàyyal tool bi danaa la jox temps temps ci ay saako su boobaa yow tool bi ci sa responsabilité la nekk loolee da ngay gis ne day dellu ci yow mais daal bépp tool boo xam ne ay nit ñoo ko bokk bala ñoo dem di génnee zakat bi dañuy gis ne ñoom ku nekk sa wàll ga nga am ca tool ba am na nisaab nga doog koo génneel zakat mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain